sa tur ak sa sant di la laa laajte xew-xew bi nga xamante ne Sénégal yëpp dañoo xëy yeewoo ko tey muy demu ko euh, Thione Ballago Seck di sa mag di sa wóolare di sa xarit euh, nu bëggoon ñu nga wax yow ci li nga xamante ne moom nga xam ak ci moom ak li nga xamante ne moom ngay wax ci bisub tayam bii. perte bu mag la perte bu mag la pour réew mi perte bu mag la pour Afrique waaye perte bu mag la. ci milieu culturel rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy def musique coon gunge nañu coon wan nañu coon wax nañu te ni ma ko waxee woon tey ci suba bu doon leneen mooy tey coon sekk fii ci àdduna tey gëm naa ni digganteem ak sénégalais yi ak africain yi kon du dem waaye nag yàlla kenn mënu xëccoog moom moom mooy dogal di jaale ñëpp di jaale suñu bopp di jaale famille bi di xaar nag ba li nga xamee ni que moom mooy li ñuy def sotti bu mu jeex ñu soog a continuer di di expliquer waaye actuellement dañ koy xaar gunge ko suñ ko gungee ba pare après xëy na ay baat dina gën a jib ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla